mbokk yi dal leen ak jàmm ñu ñëwaat ak yéen ci mbiri Hiba Thiam di xale bu jigéen bi fi ñàkkoon bakkanam niki weer yi ñu génn ca appartement foofee ca Almadi ña organisé woon rencontre boobee nag te ka ca gënoon la fës di Dame Amar di doom ci milliardaire bi di Ahmed Amar démb la doon jàkkaarloog ak juge bu huitième cabinet bi moom ak ku ñuy wax Louty Ba ak Djibril Ndiogou Bassel ñu gën ko xam ci neex ñoom ñëpp juge bi déglu na leen ci fond wu dossier bi ginnaaw trio bi la copine nu Dame Amar bi waaye tamit Fatima Rigal ñu gën ko xam ci turu Poupette ñoom juróom ñi ñëpp jot nañoo amal ab face à face ak juge bu huitième cabinet bi demb ci àllarba ji bokk na nag ca lañ leen di toppee mu di association de malfaiteurs maanaam lëkkaloo di def ay ñawteef waaye tamit usage de drogue maanaam jëfandikoo ay sinébar yeneen mbir yoo xamante ni aussi ñu ngi leen ko doon toppee moo di non assistance à une personne en danger maanaam xeetali nit ku nekk ci un de détresse waaye tamit violation de la loi sur le couvre-feu ci fàttali nag mbir yi mu ngi xewoon ci ab soirée bu ñu organisé woon ci guddik 3 jàpp 4 avril ci ab appartement bu nekk foofee ca Almadi ca boobule soirée nag ay doomi célébrité maanaam ñoo xamante ni seeni baay xam nañ leen ci réew mi waaye tamit ak ay doomi homme d'affaires ñoom ñëpp ña nga fa daje woon doon jaay maana jamono joojee nag yamoo woon ñu daal di décrété woon ab état d'urgence boole ci ab couvre-feu waaye nag naam état d'urgence boobee tegoon nañ ko terewul leen woon ñoom fi sa papa yooyu daal di amal soirée boobe ca appartement bu nekkoon foofee ca Almadi ca noonee nag la ab xale bu jigéen buy wuyoo ci turu Iba Thiam daal di ñàkk bakkanam ginnaaw bu mu amee rek ab overdose jërë ngeen jëf fii la ñuy yam ak yéen dañ ci ñëwaat ci yeneeni xibaar ci nu mu gën a yaatoo